dale nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen ñu xëyandoo Amadou Ba mi nga xam ne moom la waa coalition Benno Bokk Yaakaar tànn ngir mu nekk seen candidat ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal dina jafe lool ci Amadou Ba ngir mu gagné yooyu la élection yéen kaay gi waa Grand Place Aminata Touré daan nay wax ne képp koo xam ne votel nga Amadou Ba yow ànd nga ci troisième mandat bu président Macky Sall moom Aminata koo xam ne votel nga Amadou Ba yow ma ngi mel ni votel nga Macky Sall troisième mandat te loolay gars yi jamono ci waruñu ko nango moom Aminata Touré daan nay wax ne Amadou Ba mi nga xam ne moo nekk premier ministre barki dee moo njaay bëri na ay nit ñoo xam ne faat nañu leen fee te nag ba léegi amul lenn lu leer loo xam ne wax nañu ko ci enquête ba Aminata Touré tamit daan nay wax ci mille milliards yu fonds covid 19 yi nga xam ne jamono ji ma ngi de l'Observateur xëy duñu xibaar bi la ñuy def remaniement bi démb ci conseil des ministres la ko njiitu réew mi di président Macky Sall xamal ñi nga xam ne ñooy ministres yi yéen gi de témoin xëy dañu xibaar naan ñu Doura Baldé bu Kolda moom la jël yóbbu ko Lonaas Lat Diop journal bi di Direct News nee na Lat mi jiite Lonaas dañu ko faa daal di dañu ko daal di limogé yéen gi de la xëy di ko dëggal ne Lat Diop dañu ko viré yéen gi nee na Cheikh la xam mooy jët diwaanu lonaas yéen i gii di laas xëy dañuy xibaar naan ñu Mamboy Diaw ginnaaw bi mu génnee lànk ba tëdd sa naaj bañ a ànd ci tànn bi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar tànn nañu ko Amadou Ba journal bi nag nee na Doura Baldé la nguur gi jël ak Fabouly Gaye ca diwaanu Kolda ngir nag ñu mën a contrecarrer ki nga xam ne mooy Mamboy Diaw ngir nag ñu mën a fatt fépp moo tax journal bi nee na Doura la ñu jël yóbbu ko lonaas yéen i gi nee na ñaar ñooñu la nguur gi jël ngir nag ñu jàmmarloo ak Mamboy Diaw Doura Baldé ak Fabouly Gaye yéen kaay gi de la Tribune xëy dañu xibaar naan ñu

Alassane wax ne réew mi bu ñu ko bëggee développé lépp loo xam ne jëm na ci wàllum corruption wàllu mal gouvernance loolee dañu ko war a faj ba pare yéen gi di critique xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci choix bi nga xam ne président Macky Sall def na ko ci Amadou Ba ñi nga xam ne ñuy waa parti socialiste ba léegi waxuguñu yéen kay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu en tout de sall élection présidentielle 2024 yi nga xam ne la ñu te nag changement mën naa jóge ci ñooma maanaam lépp ñoom mën nañu ko soppee mën nañoo dëpp carte gi yéen gi di bés bi dafa daal di xëy duñu xibaar naan ñu fàtte xëju fii nawetub daaw bi fi la fekk néegi seen yëpp xamme nañu ko yéen gi lam ci bëgg a wax mooy Aminata Touré mi nga xam ne jamono ji mooy woo Amadou Ba ci lu jëm ci wàllum débat public moom Aminata Touré Ousmane Sonko woo na ko fi ci lu jëm ci wàllum débat public ci wa bëgg Amadou Ba daal ko koy nangu la yéen a gi de la dépêche xëy dañu xibaar nañu Amadou Ba mi nga xam ne tànn nañu ko en ba moom Mohamed ci tey àndu ci ëllëg te yàggatul dara Mohamed Boun Abdallah Dionne dina leeral askanu Sénégal gi yëpp maanaam dina wax ak askanu Sénégal Sénégal bi nag nee naa audience bi nga xam ne Macky Sall siqoon na ko Mohamed Boun Abdallah Dionne ni ki démb ci àllarba mën na la gis nga audience la boo xamante ni tàngoon na jër yéen kaay gi di vox populi xëy duñu xibaar naan ñu ginnaaw bi Aly Ngouille Ndiaye génne xibaar naan ñu en tout cas mën na la soi bi nga xam ne def nañu ko ci Amadou Ba ñu baree bari ànduñu ci yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall bëgg naa lijjanti Macky Sall munta wax bi Macky Sall munta wax lu dugg ci bopp Abdoulaye Daouda Diallo journal bi nag nee na ki nga xam ne mooy Thierno Madani Talla ak a lijjanti ne mooy Abdoulaye Daouda Diallo ndax journal bi nee na Macky Sall dina jaaxal ñu bare bare ndax Amadou Ba mi nga xamante ni nag musta gagné li nga xam ne mooy ay élection journal bi nag nee na élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn ak élection législative yi ville bi nga xam ne fa la Amadou Ba dëkk Amadou Ba gañewu ko mën a centre de vote bi nga xam ne fa la doon voté Amadou Ba gañewu ko bureau de vote bi nga xam ne fa la doon voté Amadou Ba gañewu ko journal bi nag nee na Amadou Ba moomee nga xamante ni loole lépp daf ko ñàkk nan lañu ko mën a jiitalee tey na ko gañal Sénégal

yooyu maanaam ànd ñu ci soit bi nga xam ne moom la président Macky def ci Amadou Ba yéen kaay gi di quotidien yor yor bi xëy di xibaar naan ñu nag ab hymne bu bees mën a na la a gis nga loole nag dafa tere nelaw ñi nga xam ne ñooy kilifa yi kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi bëgg ñu benn yoon di dégg li nga xam ne mooy Ousmane Sonko na mu naa la ji nga xam ne ñoom la farandoy Ousmane Sonko yi jëla mën a la ku weddi keroog match bi nga xam ne Sénégal Algérie ni nga xam ne moom lañ sonkorisé li nga xam ne mooy stade bi loolee moo tax journal bi nee na hymne la boo xamante ni hymne de résistance ñi nga xam ne ñooy patriotes yi loolee la ñu jël waaye ñi nga xam ne ñooy kilifa yi mën na la Sonko namu naa la ji bëgguñu koo dégg de waaye nag journal bi nee force ñu dégg ko yéen gi di Direct News xëy duñu xibaar nañu tremblement de terre bi nga xam ne moo am ci diwaanu Maroc Serigne Mountakha Mbacké Bassirou génn na lu toll ci cent millions ngir ne ñooy waa Maroc yéen kaay gi nee na ki nga ne mooy Serigne kaay gi de xëy duñu xibaar naan ñu am na ku ñuy wax Ousseynou Bodiang mi nga xam ne moom la ñu njort ne moo rey ñaari policiers yi nga xam ne ñoo dëkk Gambie yoo xam ne ñoo ngi bokk ci kuréel gi di unité anticriminalité journal bi nee na ñaari policiers moom la ñu moom la Ousseynou Bodiang daal di faat ka ca des jamono ji am na ay gaañu-gaañu waaye teg nañu ko loxo ci diwaanu Jululoo yéen gi di Direct News xëy duñu xibaar naan ñu ci diwaanu Saint-Louis na fa ay gox yoo xam ne jamono ji dañoo sonn ba maara détaali ndax taw yi nga xam ne taw na ko yi ñu génn ba léegi askan wi nga xam ne ñoo dëkk ca diwaanu Saint-Louis am na ñu ci jafe-jafe waaye nag journal bi nee na bu dee am na ñenn ñoo xam ne ñoo am ay jafe-jafe mooy askan wi nga xam ne ñoo yeewoo ci diwaanu Diourbel ndax marché Ndoumbé na lu toll ci ñetti téeméer ci cantine yoo xam ne jamono ji ñoo ngi tëmb ci ndox mi journal bi nag nee na marché Ndoumbé Diop bi nga xam ne moo nekk ci diwaanu Diourbel en tout cas ñi nga xam ne ñooy askan wa fay yeewoo jamono ji sonn nañu lool ndax taw yi nga xam ne moom la fa taw fan yi nga xam ne moom la ñu génn loolee moo tax lu toll ci trois cent cantine ñoo nga ca biir ndox ma